ay Binta lan la ñu ubbee revue de titres Ousseyn Ndiaye jàppal ne moo leem yéenekaay yi li ñu xëy fésal ci seen à la une bokk na ci discours à la nation bi nga xamante ni njiitu réew ma président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ko kon doon def nege ni démb journaux yëpp nag ku ci nekk sa à une daal di nga cay taf foto njiitu réew ma bu baaxee dañu koy dal di dooree ak journal bi nga xamante ne moo di libération libération nege ni tey daal dinay dikk ak ñun ci président mi nga xamante ne nag daal dinay démanteler assemblée nationale ba waaye daal di convoqué nag li nga xamante ne ni moom moo di corps électoral ba ngir ñu soobu ci ay élections législative élection yooyee nag libération nee na jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeruk novembre atum 2024 waxtu boobee député sortant yi ba tey dañuy daal di des nag ak li nga xamante ni moom moo di seenuk mandat ginnaaw bi nga xamante ni di ñëw ñu soog a ñàkk li nga xamante ni moom moo di seenuk mandat waaye nag journal bi di libération nee na assemblée nationale moom abaana gasi dootul amati ci miim réew lu dul élection présidentielle fukki fan ak juróom-ñaar ci weeruk novembre waxtu boobee chef de l'État moom nag daal dinay xamle ni majorité sénégalais li ñu bëgg ci loolee ca lay daal di tënku rawatina nag li nga xamante ni moom moo di bëgg-bëggub Sénégal mooy ñu daal di nasaxal bi lee assemblée nationale te nag gisul benn yoon ne dafa war a doon ab politicien boo xamante ne dafay jël ay bëgg-bëggam di ko teg ci kaw bëgg-bëggu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askanuk Sénégal moom moomee mu daal di ne ca la ngooy ba waral mu daal di nërmeel li di assemblée nationale boobee marine nationale waxtu boobee ba tey ca diwaanu Mbour Ousin ñu ngay def seen kéem ñeenti doomu aadama ñu ñàkk seenug bakkan ci suuxuk gaal googee doon jëm ca Espagne jotees nañu kaa génnee saa sile tembe nag marine nationale ñu ngay xam le ni ñu ngay def seen kéem tolluwaay kattan di wëyal li nga xamante ni moom moo di liggéey bi ngir mën a xam rek doomi aadama yu des ana fan la ñu daal di nekk le témoin la ñuy daw daal di koy wërali le témoin dikk ak ñun ci li nga xamante ni nag moom moo di acte de décès bi nga xamante ni moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye xaatim na ko nege ni démb daal di koy jébbal askanuk Sénégal xamal leen ne leen nag fukk ak ñeenteeluk législature boobee boobee dee na ba ñu daal koy suul waaye suul googee nag du fleur du couronne woo xamante ne tegal nañu ko ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di député yi le témoin daal di ne moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye la mu tegal di jëm ci ay élections législatives député yu bennoo bokk yaakaar ya jamono joojee nag nee nañu kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa daal di salfaañe lépp loo xamante ne nag dafa daal di jëm ci seen ak ak seenu ko yelleef législative yooyee nga xamante ne nag daal nañu koy jàpp moom Anta Babacar Ngom doomi Babacar Ngom gu Sedima googee nee na ay dëkkandoo la ñu fas yéenee doon foofee nga xamante ni nag moom moo di ca péncum ndaw réew ma ab cohabitation dëgg la fa fas yéenee amal commentaire wi nga xamante ne nag moom moo daal di jëm ci li nga xamante ne moom moo di élection législative yooyee ñu jëm ku ci nekk sa xam-xam daal di nga ci yëy yàbbi ci la témoin Sud Quotidien la ñuy daw daal di koy wëyali fekk fa nataaluk président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu dikk ak ñun ci dissolution actée bu assemblée nationale boobee Diomaye Diakhar xaar fay la nit ña doon xaar di ko mbiijoo ko mbaaloo jamono jële nag daldi na koy jeexal ba mu jeex tàkk daal dinay nërmeel li di assemblée nationale ba le quotidien le quotidien daal dinay dikk ak ñun ci suux ak euh, assemblée nationale boobee Bassirou Diomaye jaaxaar fay bëgg-bëgg ki di Ousmane Sonko daal dina ko koy nangul bu ñu sukkandikoo ci le quotidien bu ma Madiambal Diagne bi muy xamle nag daal dina fixé ay élections législatives fukki fan ak juróom-ñaar ci weeruk novembre ak li nga xamante ne ni ay vide institutionnel la ak conséquences yi nga xamante ni fas yéene naka jur ci wàllum koppar loolee lépp le quotidien ni koy def ci xëtam bu njëkk dikk ci li nga xamante ne moom moo di jeu et russe waxtu boobee di ne nërmeelug assemblée nationale bi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo di ilimaanu jëwriñam di Ousmane Sonko Diomaye daal di nay sacrifier lépp loo xamante ne nag dafa daal di jëmoon ci li nga xamante ne moom moo di ab kàddoom rawatina ab signature am daal di doxal bëgg-bëgg ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko Anta Babacar Ngom ca Walf Quotidien la ñu ko daal di fekk mu dikk ak ñun ci législative anticipée yooyee Anta Babacar Ngom nag daal di nay nga xamante ni moom moo di cohabitation foofee ca pencu ndaw réew ma Walf daal dinay dikk ak ñun ci li nga xamante ni nag moom moo di le coup de farge de Zarnak waxtu boobee Benno Bokk Yaakaar ak Thierno Bocoum ñoom ñoom la ñu yëkkati seenub kàddu nee nañ ab parjure dëgg moo daal am ci li nga xamante ne ni moom moo di ndërmeelug assemblée nationale boobee Bougane Gueye Dany daal ne nag waxtu wile ab résistance daal dinay sonné jot na ñu daal di wane suñu bopp législative ñu fixé fukki fan ak juróom-ñaar ci weeruk jàppee risque li nga xamante ne nii daal dinay am ñeel li nga xamante ne nii moom moo di wàllum budgétaire loolee lépp journal bi daal dina koy def ci à la di fay fekk ba tey quatorzième législature boobee nga xamante ne daal dinañu koy nërmeel ndege ni démb ginnaaw discours à la bi nga xamante ne nag moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi ko doon def daal dinay jàpp datuk élection ya waxtu boobee nag groupe Benno Bokk Yaakaar ñu ngay dénoncé bu baax a baax li nga xamante ne nag nee nañ la groupe Benno Bokk Yaakaar googee nga xamante ne ba ñu daaneelee moom Thierno Bocoum daal dinay xam ne nag daal di ne lii dafa sax daal di ruslu ci kaddu goo xamante ne njiitu rew da nga ko yëkkati ba pare daal di cay wonnaat say kaddu la tribune yéene kaay def na taaluk président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay ak ilimaanu jëwriñ Ousmane Sonko muy xamle nag daal di ne indécence présidentielle noonee la ko daal di xamle moom Bougane ngay Dany ba tey soo demee ca xëtu yéene ba ca suuf mu ngay woote nag ab union des forces vives ngir ñu daal di taxaw daal di wallu réewum Sénégal ndax ndaxte nee na ñaar ñii suñu ko bàyyee ci seenub loxo ci ab guuta la leen di daal di dugal source a ba tey daal di nay jox kaddu ki nga xamante ni nag moom moo di njiital gëm sa bopp ginnaaw adresse à la nation bu chef de l'état boobee Bougane Gueye Dany daal di nay taxaw nag jamono joojee di xaxaar yàq lu mel ni keteeme kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ilimaanu jëwriñ Ousmane Sonko daal di ne nag li nga def nii defoo ko lenn lu dul daal di sauver ki nga xamante ni nag moom moo di sa ilimaanu jëwriñ di Ousmane Sonko la solo yéene kaay daal di ne nag ca urne ya la ñu daal di jëm dat ba moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina koy xamle Le Soleil yéenekaay daal di ne fukki fan ak juróom-ñaar ci weeruk novembre ca la ñu fas yéenee jëm ci ay élections législatives fii ci diwaanu ko Sénégal waxtu boobee na nga xamante ni lépp loo xam dafa jëm ci wàllu majorité euh, parlementaire foofee ca assemblée nationale ba mer ba futt la ñu daal di def waaye réduction des comptes bi ba tey ñu nga koy daal di wëyal ngir situer responsabilité ana ñan ñoo lekk xaalisuk état Sénégal li nga xamante ne ni moom moo di dissolution assemblée nationale boobee président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dinay achevé ma Macky Sall googee ñoom ñëpp tekki na seenu ndomba tànk waaye dañuy desee li nga xamante ne ni moom moo di seenu mandat réduction des comptes responsabilité waxtu yooyee nag nee nañ ko ci nekk danañ ko daal di situer ci niveau bu mu mënti nekk bés bi le jour la ñu koy daal di jeexalee moom Bassirou Diomaye Diakhar fay ginnaaw signature wa nga xamante ni daal dina koy def Bassirou Diomaye Diakhar Faye signe contre sa signature wax jamu waxoon ba xaatim ko jamono jile daal dina koy teggi tegaat ci geneenuk signature waxtu boobee nag nga xamante ne moom nee na bëgg-bëgg askan bi moo di bëgg-bëggam ginnaaw assemblée nationale googee da na a woowoon ci njekk waaye assemblée boobee la ñu bëgg moom mooy ànd ak moom ngir nërmeel li nga xamante ne ni moom moo di gouvernement bi ak liggéey ya mu bëgg yëpp waxtu boobee ñu daal di ko koy tënkale ginnaaw fukki minutes ak juróom yooyee nga xamante ne sanu jonn njortoon na ni Ousmane Sonko ca la waroon a taxaw def déclaration de politique générale bi Ndiaga Sylla moom mu ngay interroger wu jëm ci li nga xamante nag moom moo di conseil constitutionnel mi nga xamante moom la daal di concerné jëm ci ay calendrier électoral waxtu boobee ba tey président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daan ne nag rapport Cour des comptes jamono ji ku ci nekk sëb cëggal guy da nga ko daal di jël nege ni démb ab black out moo li ko waral ñu daal di ne Sénélec foofee nag ab paan moo fa jël seenu ko euh, jéggalu daal koy teg ci kaw askanuk Sénégal waaye askan ba yàq nañ leen lu mel ni keteeme ci réseau sociaux yi ginnaaw Sénélec googee askanuk Sénégal daka daal di lakk ba mu xam ci wax ak a naqarlu ci black out bi nga xamante ne moo amoon nege ni démb Ousseyn Ndiaye mbooleem yéenekaay yi lii la ñu xëy fesal ci seen à une titre yëpp dafa dem ci ki nga xamante ni moom mooy euh, dissolution assemblée nationale bi nga xamante ni démb Bassirou Diomaye Faye daal dina koy annoncé bokk ci lu ñu war a waxtaane d'ailleurs daanaka xaw na occupé bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy actualité bi euh, ñëpp ñu ngi ci daal di yàbbi